asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Yoff TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seen onde ak seen télévision locale comme niñ tàmmee doon ko defee rek saa su ne rek dañuy indi ay euh, émission yoo xamante ne à chaque fois bu ñu leen ko indilee da ngeen di content bu ngeen gisee décor bi nag xam ne tey dañoo changé place gis ngeen ko changé lieu uti indi beneen face boo xamante ne euh, dañu am benn ndaanaan bu rëy boo xam ne dañ fas yéene waxtaan ak moom mu nekk nit koo xamante ne comme ni ñu koy waxee kenn dootu ko présenté fii ci yoof ci talent wam wax dëgg yàlla ci modestement parce que nit dafay xewle dara sax mu daal di ñëw couvrir la ko ba mu neex ci ci ci ci ci ni mu ko neexee daal wax dëgg yàlla dañuy am mbégte saa su ne rek di ko dalal mu daal di bokk ci ñun Yoff TV ba pare daal di xam ngeen ko muy alalu Yoff moom comme ni ñu élément yoof la wax dëgg yàlla pur et dur donc euh, mu ngi euh, tudd ki nga xamante ne nii mooy Mamadou Fall xam naa ne Mamadou Fall

mu euh, Chérif Mouhamadou Matar Laye di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu te wér liggéey bi nga xamante ne moom la magam euh, Chérif Abdoulaye Thiaw laay doon liggéey tey mu yanu ko yàlla na woyof ci moom waaye di nuyu aussi euh, tous les xalif généraux yi nekk ci réew mi di nuyu képp kuy bëggee télévision bi maa ngi ziar ñëpp

mais ma aussi si nit sommes là, bokk. nous sénégalais lambda là bok nous sommes jaaru des fois ñun aussi muy yow muy sommes ñu oñu des fois ñu toog ci plateau yi euh, ñu ñuy tontu.

Eh, dama dëkk sama kër dëkk ak un animateur muy sama rakku papa ñu koy wax Ardi mm. ñi di wax DJ Linton ñi di wax Ardi yag na eh, jamono bobu sax man maa ngi dëkk Laayeen kër sama rakku papa bi mais dama don xey di daw janggu, wala su ma ngi mengen nek negam mom Ardi bu anime ji ngénte ma top ko bu anime ji ngon gi ma top ko c'est-à-dire loolu laa gisoon ba janggu. a bëgg musique teel a bëgg animation ma ngi don jang ma ngi jang d'accord tay ma ngi jang ma ngi ma ngi don jang mais Euh, ma gis ko mu ne ci kër gi di animé ji di ànd ak ñoom mbaalu ak Papa Diagne ma téla gis lolu téla amour ci lolu di len top dañ ma doon dakh sax au début mom arène daf ma doon dàq su ma ñëwee daf may dakh mais ma dëgër bop rek téla bëgg affaire bi nek ci top ko non ba commencé diko def. légui nek nga def plus de 20 ans wala 20 ans bu ci tolloo. parce que dañ ci teel dugg comme ni ñuy wax. man na wax 20 ans parce que amna lo xamantene sama carrière man duma ko faté moy jour bi xamantene man jour boobu laa njëkk animé di man kessé ma dem animé ji man kese ndenaat la woon benn tour la woon a yoof amoon nay ay temps dañ doon animé ay tour jigéen ñi dañ doon am ay tour tour bi commencé waaw de 17 heures jàpp timis bi noonu mu jeex euh, li tax du ma ko fàtte dafa yemoon nax élection présidentielle yu 2000 mil yàgg na boobu xale laa boobu 14 ans la am dëgg la 2000 euh, ardi Moustapha Niass bi tey di président assemblée nationale AFP moo doon meeting terrain bu yoof loolu moo tax du ko fàtte kekka ba kekka ba ndeysaan waa bu déggee ne xam li may wax ardi demoon fa ben beneen animateur bi moom percussionniste la da doon teug mhm. di teug ay programme ju mu demoon tëgg ji Papa Diagne jàpp jazz mhm. man ma fi ne ardi fa jël ampli bi égaliseur bi lecteur yi table bi table yoy table yago table pyramide yoy branché ko ci kër gi tegleel mako ko ko sareet bi man suma ma courant bi rek lay branché ak kessé commencé lourde sama cassette di animer jour boobu laa animé di man kessé c'était en 2000 ben tour ndenaat moo tax loolu du ma ko fàtte donc bobu la commencé nak di dem ndànk ndànk ndànk ndànk ba yi si topp yëpp ñëw quoi. la mu ngi nekk 22 ans de carrière tey ji ko doon compter. ak li nga xamante ne jot nga ko mbapat ci moom. Mm. mais tamit say parents naka lañ gisee woon loolu. parce que yombul tamit xale ngay nekk ci période ngay jàng ba pare di dugg ci li nga xamante ne mooy showbiz. waaw euh, bon c'était trop dur. man ko xam sama papa xam ne dafa metti su ma nee dafa metti mooy. man parent maanaam am naa parent boo xam ne kenn gënu ko foo taxaw ci yoof nga ne El Hadj Baye Dame Samb la ah, wax lu baax ci moom. man bon damay seede loolu quoi. élément Seydina dañ ma koy dañ ma koy wax. Hmm. fu ma taxaw ku sabab ma ne Baye Dame Samba dañ ne man ah wax lu baax ci moom. au début dafa metti woon ci man parce que dama doon daw jàng dafa animé ji ma dafa ma sa fekk may animé bayaalu mbengeen hmm. ci bayaalu fii gën naa nekk booy man kese ma taxaw fa mu ne tël sa bayaal bi seen mu jubal ci man ne ma jogal ma ne ah mu ne ma ñibbil ma ne ko man ren kenn ne ko mu ne ma ñibbil

jàppale la si xol nan la mën def ba accompagner la si. temps boobu noonu ani sa yaay parce que papa yi comme li ñuy wax ñom ñoy gëna a metti mais yaay yi en général dañuy couvrir sen ay doom. mais mu ngi fi mais temps boobu euh, dëkk mu woon ak sama papa dëkk mu woon ak sama yaay. ma ngi dëkk woon sama rek papa Mansour. ak tante Penda Ndoye. tante Penda waaw. man Penda Ndoye moo yar moma duggal école moma solal monde motax tax yoof képp pour ñom Penda moy sama yaay. peut-être li su ma ko waxee tey ñu bëri dina naa kon ki Penda du yaayam parce que mom lay wax yaay. parce que moom a yar mom la xam mom la dëkkaloon dama doon jóge laayeen la wax daw jàng wala leneen te su ma naan daw jàng dañ koy xam parce que maa ngi jàng école jamono boobu primaire te pen dama ngi école jël na ma école yóbbu ma école arabe jël naa fa dem fa ma joon laay benn année vite fait mais dama doon sonn dama doon sonn dañ ma ko doon tere dañ ma ko doon tere pen doon wax ba sonn pas mon sonn wax ba sonn mais xam nga xale bu defee focus ci benn affaire ba bëgg ko da ngay sonn rek pour nga dindi ko si day métti ani lan nga ci gisoon wala da nga faawoon ardi wala nan la demee waaw ardi xameta ñaari grand yooyu man dañ ma marqué. xam nga magu ñoom di naata. Mhm. dañ ma marqué dañ ma marqué cest dama xaw a xàmmee rek gis artiste ci affaire bi man affaire bi teel ma dugg. ma teel ko topp léegi bu mu daan su ma gisee ni mu daan doxalee affaire bi di neex ardi ardi bi yooyu jàpp ma. des fois moom mu demoon su ma àndee ak mbaalo affaire muy neexee affaire bi teel ma dugg. Mhm. ma teel am boobu noonu ku mel ni xameta dama ko doon topp des fois. Mhm. xameta moom aussi. muy mag ñoom naata ma koy nuyu de passage tey mu ngi Espagne bu daan ñëw nii bu daan jóg Espagne ay 2010 2012 11 yooyu loolu daf ma doon woo man ak moom naata ñu nekk sobam fii temps yi ne naata di nekk kër ñoom bu scolle di mixé foofu dafay affaire et tout ça parce que dañ ko doon topp teel a am amour si affaire bi bëgg leen mm. mais loolu moom si dugal ah, amour la d' abord mm-hmm. parce que mbir moom boo koy def d' abord da nga koy bëgg boo ko bëggul rek bon day des mais man affaire bi dama ko bëgg mu nekk sama xol d'abord. dëgg la waaye tamit dañuy ñëwaat tuuti ci li nga xamante ne mooy sa ndaw DJ Laye ban façon xale la woon. bon xale bu xale bu rek la mais <laughs> xale bu. bu dox ndawam. dëgër bopp aussi waaw. franchement parler parce que mooy li ma la fi ma dëkkoon. Hmm. dafa nekkoon bon quartier boo xamante ne nii temps yooyu rëbul woon lool. Hmm. parce que dama jóge ngeen ñu toxu Laayeen yóbbaale ma. Hmm. ma dem Laayeen mais dama jóge Layeen tëb Mengeen di fréquenté Ndëngaan ah, waaw beneen saan Ndëngaan laa dëkkoon. d'accord loolu moo ni sama xaritoo ak Birane Samb. ndeysaan parce que Cheikh Diène. Mhm. rakku euh, doomu Pape Assane Diène laa bokkaloon classe. Mhm. primaire ba école arabe. Mhm. ñu ma ma ma ma jóge Layeen rek di fréquenté Ndëngaan dem ba di fa fanaan. dëgg la que ñoom Cheikh Diène que ñoom Birane Samb. te Ndëngaan jamono boobu. yoofu yaa ma gën a xam. la xale buy jógee laayeen ñëw di fréquenté Ndëngaan dañ naan waaye kii bëggul lu baax dafa yaaxu parce que temps yooyu bu doon am

bilaay dimbali fi laa tourné parce que da nga doon teel a bëgg xaalis. dëgg la beneen sens da nga doon dem di liggéey manœuvre. Mhm. marché yoof bii nii marché yoof bii nii dama fi dama fi doon liggéey manee bar ñu lay fay journée deux mille cinq cent. ndeysaan tukkali tukkali bu may dégg. waaw tukkali moo ñu engagé moo ñu doon fay man ak Mesta DJ Mesta mii. Mhm. ay ñoom xaaf dañu doon fay parce que boobu noonu yaa ngi commencé di jël âge nekk adolescent di bëgg a xaalis yaa ngi bëgg a solu soirée yaa ngi fi yaa ngi bëgg dem am na yoo xam ne ko may yow yaa sa bopp donc lolou xalé la won bo xamante ne na découvrir yenn affaire yi teel sop sob bëgg dara aussi tamit dëgg la ñu gis tam sa niveau jàng amna na fu mu toll macha allah waaw bon yaa ngi débrouillé bu baax waaw parce que ñu ñu bari ñu bari duñ duñ comprendre ki mom bon lal fa la jangé wala du genre et tout ça mais jàng yomuna na mm. jàng à part bu dul école primaire da ngay dem privé bu privé man nga def ay formation voilà école 2 lañu jangé jogé fa dem école arabe école arabe defal ben at ñu dem yóbbu ñu ñu dem mañoon lay doon fa def ay cours renforcement et tout ça mais après da ngay dem def ay formation parce que bo bëggé ben affaire mm. da nga xamné li amna am na lu mu jar man dama toogaa sama pap ne kat man li ni ma bëgg ni euh il faut ma dem jéem améliorer wu ci côté jang bi moo tay des fois euh gaay bëri da ngay taxaw di wax ñu naan ki dafa waané dafa wara man dégguma français mais dañuy débrouiller c'est-à-dire dañuy wax li nga xamante ni ci suñu métier war nañ ko mëna wax mooy l'essentiel dañ koy wax mu jaay doon dañ koy def donc dañ koy def. donc mais ba tey jii nii dañuy jàng. parce que jàng du jeex. ba tey jii nii damay dem di comme comme ni nga wax mu am lu bari loo xamante ne wax dëgg yàlla jot nga ko def euh, si sa jeunesse. Mm-hmm. mais tamit dañuy ñëw ci PC ñëw si Kër Jo ani DJ fan la jaar tam ci li nga xamante ne tamit mooy rajo wala télé est-ce que expérience boobu fan nga ko jëlee parce que dañuy gis ne fu DJ waxee rek ñëpp dañ naan tël kii année fan la jàngee lii. waaw bon en animation dafa doy am na loo xamante ne ay technique la doo ñëw rek mën ko koy li nga wax léegi ay kër zoo ay PC fa jaar cest mooy li ngay wax mbappat ñun dañu mbappat xam nga ku ne la 2000 la njëkk animé ji moom kese ñu tegleel ko matériel mu dem kooku noonu am na fu mu jaar euh, dañ jaar mooy li ma la doon ànd ak mbaalo et tout ça ñoom moom Papa Diagne di dem kër zoo di dem PC di dem kër zoo ba jamono neex man ma ànd ak DJ Mesta mm-hmm. Mesta mi ngay gis nii ñor na mbokk benn laal bu ñuy fanaan wax dëgg yàlla laf cat waaw laf cat c'est-à-dire yoof ñu bëri xam nañ mi am na xamuñu yoof toll na jamono doo gis Didier Laye te doo gis Messi doo gis Messi te doo gis Didier Laye. te pourtant ñu ngi leen di wax Neymar ak Messi ak Cristiano Ronaldo dañuy wax loolu ak kii nangam nangam mais c'est mon ami c'est mon frère. métier bii nii ñoo ko defandoo. jàngandoo ko bëggandoo ko demoon ba benn moment ñu ànd yàlla dogal PC ñu jékki-jékki rek taxaw fa y avait Didier Saba ak Naata mhm. ñoom ñu nekkoon fi les frères doon yëngal bu baax a baax mais à un moment donné aussi ñu ñëw gëm suñu bopp imposé wu. ba ñu ko commencé dégg Mester Laay Mester Laay ñu commencé di am ay contra PC di ko anime animé di dinañ tolloon nay jamono. Mm-hmm. pour ñu animé PC ñun da doon métti si ñun. ndeysaan dafa doon métti trop trop trop. da ngay demee ba si yàgg dégg baaful di pete fekk bënn nañ ko. billaay walaay taalaay. moment yooyu dund ngeen ko parce que xeex bi métti woon na. ñu soog a ñëw di di imposer PC bi donc il faut nga gëm sa bopp. kon eh. jamono bobu tam loolu amoon na fi. non yalla mo tam may dafa am suñu benn grand palay mhm. papa la Palaay mu ngi dëkk Layeen en face Jàmmalaay. waaw maçon la nii. dañoo ànd ak mom mujj gi moo ñu doon defal sécurité. bu ñuy animé mom moy ñew ak mam Cheikh ñoy ñew taxaw ci bafuli mhm. ñun ñu taxaw di animé. Mhm. parce que dañu doon animé deg jékki bafuli di pété. parce que gaay ñu ñew fekk ñu xoti ko. ta du ngeen xam ko mu do du xam do xam ku mu doon ci en plein soirée. parce que boobu bon concurrence baa ngi fii ñun ñu ngi ñew di imposer wu am ñu fi fekk mais tamit ñu gëm suñu bopp mais boobu franchement dañ doon ñew

sama grand la mang koy nuyu euh, kenn présenté wu ma man ma xey rek ay 2011 man man il faut ma dem ci rajo yi il faut parce que man mënatuma tok fi mm-hmm. may dem di seeti Boubacar jalla muy metti may dem suma ma buntu RFM pour gis ko day bari nit ñi koy wër pour ma gis ko day metti ma jóg ben fajar. jour ne la ma dama vee sama gaay parlement enchaîné dem buntu RFM mu wàcc sama buntu sama mu ñew ay 7 h du matin ñew gaare rek ma téye ko nuyu ko présenté wu. mune ma kan dem ci kaw ñu dem ci kaw ñu waxtaan ma expliquer ko man may kan et tout ça ne ko man dama bëgg liggéey RFM. ndeysaan affaire yooyu quoi mune ma demé 7 h na la fekk loolu la ma demain 7 h na la fekk ma ok d'accord bi mu wax na la fekk jour ma tardé ma ñëw fekk mu yéeg ma tok ci bundu bi de 8 h ba midi yalla xamna mu wàcc rek gis ma ne ma DJ da nga tardé 7 h la la waxon yéeg ci autom dem bi mu dugg otoom sax wàccee na verre bi ne ma demain 7 heures na la fekk. billaahi walaay dalaay dem jour ma ñibbisee tëddu ma si lal nelaw ma mm. dama veille ba 6 heures du matin 4 bii laa jël jubal directement mm. man man bi ñuy julli fajar maa ngi toog buntu RFM parce que dama ne tey du ma tardé bi ñu ñëwee fekk ma toog foofu dafa reetaan mm. mu ne ma agé nañu yéeg ñu dem ñu dem ñu waxtaan mu a ma da ngay commencé def stage mm-hmm. mu boole ma ak ku ñuy wax El Hadj Assane Gueye Assane Gueye moo nekkoon directeur programme bi mu ne kii sama booy la nangam nangam day def stage fii léegi nañ xool fan lañ ko dugal ñu mu boole ak Kalz ak Olibi émission bu ñëw wax Ruel One def naa fa trois mois trois mois yi jeex ma defaat fa beneen trois mois mais durant boobu noonu yëpp kenn xamul ne man maa ngi dem di animé ji RFM benn jour laa toog parlement suñu kambis ma ñëw sëw seen sama jarbaat sëw soo ne mais laa yow tey ay 15 foo nekkoon maa ngi ay 15 sama xel dem ma ne kii li muy wax nii kon bëgg mu musu <laughs> dañuy faral di wax ne bu ñu xamee foo jëm doo yegg te yàgg nga ci mbir bëgg ci am dara tey nga am rajo bu mel ni RFM nga dugg fa am fay stage bëgg nga fa dara. foo nekkoon ay 15 heures man ma maa ngi woon gàlle mu ne ma non non mhm. mhm. doon wax RFM ne ma yow la moo tax tous les mardis ay booy yoo fa la nga indi. parce que ñoom soo ne ma woon gàlle soo ne ma tey ki ma déggee ruyal wan loolu sa la ma jox. Mhm. man nga noonu man maa ngi woon ñu ñibbi ma ne man la effectivement mais kenn est ko mu reetaan mhm. Non, ba affaire bi fa deux fois affaire bi am dem Dakar FM ci Michael Souma tous les mardis mhm. émission bande dessin Je mhm. ko à Dakar FM RSI RTS RTS si euh, DJ Prince tous les mercredis le matin 10 heures dama doon dem animer. di animé kenn du ko parce que moi, je ma Je animé ci parce que amagoo contrat ay stage ngay def et tout ça donc. tey boobu jamono boobu lan nga doon sóor da doon sóor sa waajur da nga doon sóor siiw da nga parewul woon wala naka la demee. carrément waaw mooy la que boo sama waajur am naa fa weer ah. suñu matériel bi Messa yor na matériel ñu ngi animé dem nañ sax ngi nekk ak As. Hmm. benn gannaaw bu ñuy wax As instant mu ngi animé mais bon mooy li ñuy wax dañuy wax fii xam nga dañ nekk ci milieu lébu. dëkk boo xamante ni dafa xaw a doy waar. yoof la ñu nekk dañuy faral di wax ne waaw lépp looy def yow fexeel ba mu sotti rek muy doog a jëm kaw jamono boobu loolu la woon bëgguma woon ñu naan kii mu ngi dem fii mu ngi animé fii mu ngi animé fii dafa am benn jour mhm. maam libaas ndiir dafa ma yeb quoi oh. ma dajeeg moom sali bi fii xaw ma fu mu déggee xaw ma rek mu ne mu ii yow RFM nga animé dama tiit billaahi barki oh. bàyyi laay dama tiit mu ko waxee dama tiit ma ne yow lay wax ni mu ne waaye booy RFM nga nekk waaye booy ko mën a dugal foofu mhm. cest à mooy li may wax ne dañu nekk milieu boo xamante ne. dafa doy waar voilà dañuy wax ne bu ñu xamee foo jëm rek. doo gaaw a yegg doo yegg mais bon waaye di jeeg nga gën a sa bopp keroog ba nga amee matériel mu leer nag lii yow yaa ko amal sa bopp yow yaa ngi demal sa bopp kañ nga kañ nga gën a sa bopp. bon sama papa dafa yàgg di mu wax ne yow foo mu jëndee la matériel. foo mu jëndee la matériel foo mu jëndee matériel. durant mu may wax foo mu jëndee la matériel kon maa ngi yor ay matériel jàmbur di am samay contrat bopp di liggéey di denc di liggéey di denc di liggéey denc ba sama ampli teg. Mhm. dégg naa DJ dafa ambitieux. man jëlee naa ampli lu mat at teg sama nekk. di liggéey denc. ba gis kenn benn gars bu dëkk parcelle fii benn répartiteur bu jaay benn baaful. Mhm. ma jëndee ko teg. Mhm. comprendre nga. ba yàlla dogal euh, man Abdoulaye Diouf Sarr mii tey mii nii nii. moo ma si fekk si. wax dëgg yàlla. moo ma njëkk a jox quatre baaful. ampli table micro lépp maanaam matériel au complet. fekk boobu jëlee naa sama ambil teg jëlee naa sama baabul teg am naa ay micro am naa loo xamante ne maa si doon taxale mais yàlla dogal moom moo si njëkk fekk si bu ko defee ma ne wax sama baab ma ne man day matériel bi ma ngi doon taxale si li ma yor mais tey ministre bi jox na ma matériel. Mhm. franchement parler ma koy ma koy sant encore une di ko ñëw ci moom léegi waaye nag euh, comme li ñuy wax chaque jour rek fi mu nekk nii nag euh, DJ VIP la DJ laay pour nga laal ka dafa dafa xaw a doy waar si si parce que DJ laay da nga koy jël da ngay seetlu léegi DJ day ñëw rek dugal la si mariage am boobu noonu lay présenté dafay da nga tax fi mu nekk ni xale yi jigéen yëpp bëgg am bés bu mel noonu VIP gi DJ laay léegi dafa yokk cachet DJ laay léegi dafa metti la loolu loo ciy wax

ma ñëw andi la matériel euh, Mbacke Diène DJ Kemba Papa Diène sama boy DJ Ben andi la matériel tegal la installé la man maa la andi matériel war a ñëw waxal la sama voyage bi nga fay vingt cinq mille francs waaw xar day weesu du ma ko def. je le dis haut et fort boo demee ko ma ne franchement man du ma animé émirats vingt cinq mille mm. franchement man taxumaa déplacé wu. doon nañ ko def.

man ñaata nit laa animé fi yàlla xamna ni ne barki Seydina Limamou duñ ma fay. ci cadre social bobu man amna luma ci sànni ci mom parce que damay gis événement da fay jot lo dama ko cédé mu am ñu bare bare ñu muy jàppale fi han lolu man ma toog. wax deug yàlla féké lolu événement day am sa nit day xewle dara woma téléphone. expliquer ma ba expliquer ma lo xamante ni ay affaire parce que xamna ne suma ko fayé ko mënu ma fay lolu mu expliquer ma carrément. effectivement man ak am problème. dama ñëw dafa ko dem sama yoon parce que. ki dama ko wara jappel te yalla tax. dëgg la mais nak suñu liggey suñu liggey la. Ah, on est dans le cadre professionnel dañ ko wara tek ci yoon. Mhm. man man na la may lu ne man na la defal lu ne mais quand il s'agit de mon travail là du si fo. deug la mais mais en dehors de yof di nga di nga di nga. Ah, animé fenen bien sûr bien sûr. dama man presque man damay dem fépp damay animer media ba teungé d'accord ba Rufisque damay dem Medina damay Ngor. man ngay wax sama gaay fan yi man la fan dama sonn parce que fan yi limay dug Ngor dafa bari dafa bari waaw Maria Ngor euh, tayel lan. suba samedi le huit. Mhm. bii maa ngi waroon dem Wakam mujjee ma dama animé benn femme dafa ma war a dem parce que dafa am ay contrat yu ma téye fii. dëgg la dama tegaal yi di am ngor temps yii mhm. bi dafa gën a yaatu. dëgg la mais est-ce que DJ yaa ngi créé ah, xam nañ ne yi fi mu nekk macha allah mi ngi yokku. Mhm. DJ tamit mu ngi am ci yeneen projet yu muy nekk. ah bien sûr bien sûr am na xale yu may nekk di liggéey maa ngi lay wax léegi DJ Kemba. maa lay wax DJ Ben DJ Dieno Dieno fi mu nekk na day wax. effectivement man ngi ko gis muy wax day wax man suma ma nekkul fa am dama koy wax dina micro bi nga wax nga présenter tout le temps que may ñew wala budé ñew ma fofu nekuma fa nga def ko. dëgg la parce que man rek mënuma liggéey liggéey bi. Mm-hmm. des fois damay sonu Mariama. xolal keroog samedi yalla moo tax may wax damay am samedi nit daf may o ne ma dama bëgg nga mariage mané ko non ban date la mu ne ma exemple le huit ma nga noonu le huit engagé naa. ma non man yow laa bëgg nga animel ma ma ne ko engagé naa mu ma man <laughs> yow laa bëgg nañ waxaale ma ne ko ok cest bu dee ñaari mariage hmm. mën naa ko jël bu dee ñaari mariage mais ñett si man. ñaari te ni ma koy jëlee nan la dama koy jël. Hmm. Euh, ñoom Papa benn jaar fi Mbacke Diène jaar fi man mën naa nekk seen activité bu marié bi ñëwee wala muy ñëw Mbacke daf may woo ma départ pour dugali ko fa mën naa ne de di ko dugal sax ñu woo ma fële ne ma marié bële yow mu ngi taxaw di la nga war a pare fii daw dem fële xool keroog suñu jour soirée de gala bi maa ngi war a présenté soirée gala bi muy commencé ñu may oo ci mariage ma war a daw dem ñëw te des fois da ngay sonn mais nit ñi tamit boo ne leen engagé naa sax ñu ne la déedéet man yow laa bëgg nga animel ma mais mënu ma si dara léegi li ngay def mooy da jéem a xool comment gérer ça. Mhm. fexé ba nit ñi ci kaw lan secret DJ parce que DJ dañ koy wax ah, dafa ñew am ñu fi DJ yu bari. parce que lepp fi lañu xam ne dina ko bañ. mais dañ koy wax parce que li ñuy wax né mo fi parce que avantage bi si mom le ndax wax ji ci ani lan secret DJ la eh, DJ Laf Chat yàq Laf Chat. Ah, de fi nekk mon a mu ngi fii di ko seere. mais yéen ñaar a fi nekk. non yaa a d'autres DJ war na am ñaari ñaari DJ. non non y' a d'autres bëri nañu DJ ñi ma ma lay wax nii Papa Dieng Dieno. Euh, DJ Ben waaw ah, hmm? Kemba waaw say élément lañ ngi accaparé terrain bi. non non DJ fii <laughs> du samay élément rek mais di yaa ngi fii ah mais secret du du du liggéey. Mm-hmm. liggéey xam li ngay def lan la nga dem di gëstu. Mm-hmm. nga dem di jàng ma dama ko tuwaayee animateur yoo xamante ne nii Euh, dem si yàlla ji euh, Njool Kumba DJ Edouard. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. man ak moo Diouf xam nga moo Diouf. Mhm. bàyyi na di DJ moo. ñoo yoroon matériel am ñoo yoroon sonoom fii ci Yoff. ndeysaan ñëw fii man c'est-à-dire Yoff man nga ma nit ñi njëkkee waa Yoff man njëkkee gis ak Edouard benn conférence la conférence conférence su MTCA. mooy sama ñoom pap MTCA. Mhm. ma jël ko di ko sonoriser euh, sono en pleine boobu Serigne Mbaye Sy Abdou moo fi ñëw. Mhm. en pleine conférence Edouard dugg si biir nit ñi xam nañ ko moom. Mhm. il est connu temps yii mu ngi Walfadjri ñëw jubal si man si matériel wax man laal table bi am lu mu réglé demaat après gars yi dañu may laaj yow da ngay liggéey kii da ngay liggéey bu ma yor moom moo ko moom. bilaay donc man très tôt dama dama côtoyé Edouard na côtoyé ku mel ni Boubacar Diallo mm. boobu doon toog ak moom RFM ñuy waxtaan mm. côtoyé ku mel ni Miguel Souma mm. Miguel Souma c'est le père des animateurs effectivement dama doon toog bureau tous les mardis avant may dugg studio mm-hmm. ñuy waxtaan mu lay wax lu bëri côtoyé ku mel ni Prince kon man les ténors fii nii Pape Cheikh Diallo de laa xam ne peut-être amuñu affinité wala xaw ma ko miinante ma ko te il fait partie des meilleurs bëgg naa ñu xamante mhm. parce que man képp koo xamante ne li ñu nekk nii am nga si xam-xam am noo ci mel bëgg naa xam mais man les ténors fii dama leen côtoyé ñu xamal la loo xamante ne nii mooy ni affaire bi war a demee di la jàngal yow nag ngay ressourcé wu mhm. di dem di lire di gëstu di xool di defar sa voix di di def lu ne parce que mbir boo ko bëggee da ngay jéem a évoluer. effectivement loolu rek xool technique bi naka la et tout ça. Mm. loolu moo ñuy may tey ñuy euh, persévérer quoi. yaakaar naa ne loolu leer na di leen fàttali maa ngi fi toog ak ki nga xam ne mooy DJ euh, Laye ñu amal euh, waxtaan dégg ngeen sànq ba tey ni nga xam ne moom la commencé ci ay jubim wax dëgg yàlla mu nekk lu am solo ñuy nuyuwaale suñu papa boobu muy suñu papa bay Dame Samb comme li ñuy wax kooku taalibe Seydina Limaamu la kenn dootu ko jël di ko laam-laamee taalibe Baye Seydi Thiaw la ah élément Seydina Issa wax dëgg yàlla lay maxtaar ñoo ngi lay ziar papa bu baax a baax a baax te di la wax ne la ñu ngi ñëw ci yow ah pour ñu defanteeg yow yu baax parce wax dëgg yàlla saa ñu waxtaaneek yow njëriñ la xam naa ne ñu bari nag ah, dinañ du ñu xam ne moom mooy sa papa parce que nit ci dañ koy laajte waaye gis ngeen loolu mooy secret bi dafa am benn anecdote mm-hmm. dañu nekk fii di préparer élection présidentielle 2019 mm-hmm. ma ne fii yor micro bi di wax benn paa bu dëkkante naat mm-hmm. paa bi gisatuma ko sax yàlla xam na ko paa bi dafa may xool di ma xool di ma xool maa ngi wax di président mu xool dañ pare mu ne ma eh kaay. kaay ma ne ko man mu ne ma kaay mu ñëw mu ne ma yow kala sa baay ma ne ko man baay daam sàmm rek paa bi ne la mu ne demal waaye aw li moo tax. Mhm. moo tax nga mën a wax. waaye nag dëjee foofu noonu ah def fi benn entre sa mhm. papa macha allah ci waxtaan. Mhm. macha allah ci mbooloo. est-ce que loolu amul benn lenn loo doon ci moom. bon peut-être je peux mën na nekk mën na nekk man sama papa dama koy déglu. damay jàng ci moom. bibliothèque la. te fu ma waxee dee ñëw su ma ñëwee sama buntu néeg ak buntu néegam nii. Mm-hmm. su may di dijee dijee di dijee kaay maa lay déglu sele bi wala xam ma déglu naa la nii wax corrigé la wax la parce jàpp naa ne moom moom ëpp fasaaxa. bi muy wax moom conférencier la da doon toog di def ay bi muy wax man ci duuma donc daf may corriger si lu bëri nee na moom ma ko wax jour bi ñuy def pose première pierre bu lycée bu yof fële la njëkk toog si événement dégg ma nii gis ma di ma déglu may wax mu toog di ma suivre rek jour bi ma ñibbisee daf ma woo ne moom boobu ba léegi maa ngi dégg ñuy wax si yow tey laay soog a toog dégg la nii ngay wax mhm. ma lay seetaan mais macha allah. ndeysaan. corriger ma ñaanal ma et tout ça après nag ñu continuer liggéey bi. loolu neex na comme niñ leen ko waxee du ñàkk tamit li nga xam ne moom la ñuy waaj a dugg mooy actualité xam nañ ne nag wax dëgg yàlla moom mu ngi euh, liggéey ki nga xamante ne mooy monsieur le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr comme niñ koy waxee moom ko ah. tey dinañu wax lan moo ko boolee ak kooku kaw loolu gis ngeen euh, li nga xamante ne moom moo fi jotoon jàll ci kanam dinañ ci ñëw mais DJ ñu gis si digganteeg monsieur le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr lan moo la booleeg moom. yàlla moo ñu boole xam nga yow danga am tendance. déggoo déggoo mu naan yàlla nga am tendance di ma wax ne man. Mhm. yow da war a nëët. yow da war a liggéey ak ñëpp. effectivement yow da nga war a nekk ne la ku la soxla woo la. mais mhm. man ku ma soxla woo ma liggéey ak yow. Ah. damay liggéey. je na un animateur présentateur. ku ma woo ci événement pour présenter la bu ñu wax bu wax waxtaanee bu jubóo dama ñëw liggéey sama liggéey. parce que ñi may nekkal am nañu compréhension boobu. te keneen ku ciy mer man du ma calculer loolu. Mhm. mais ñi nga xamante ne ñooy ñi war a comprendre xam ne kii day liggéey nañ ko xam mais tamit ba tey benn instant dina compliqué. mais est-ce que dina yomb foofu pour. nga ñaata foofu laay dem moo tax ma ne benn instant dina compliqué am na ñoo xamante comprendre loolu. Mhm. parce que dañuy gis ne attends kii na la mën a nekk Abdoulaye Diouf Sarr di liggéey moom bëgg tey taxaw fi di wax te pourtant lu wax mën a nekk la. mooy fi ngay waxee ne dama war a neutre. Mhm. parce que loolu sama liggéey la. liggéey bi à part quoi. bon Diouf Sarr nag li ñu boole mooy bi muy ñëw en bon en 2011 man 2011 laa ñu ko toog ak Diouf Sarr. Mhm. waa croisement sama gars yi ñoom Assane Samba maa ngi lay nuyu de passage Cekk Sow ñoo final tournoi yi Ngaparou wa cité bi ñu wara dem seeti Diouf Sarr ñu ñu mu ngi ñu ñu dafa dem France mais ajuma la wara ñew ñëw Abbas ajuma bi mu ñëwee le matin samedi ñu xey dem kërëm bu ci en 2011 ay mi 2011 yooyu bi ñu kërëm tok c'était la première fois ma tok ak mom 2011 ñu waxtaan ñu présenté wu comme moy sa papa comme moy bi ma waxee sama papa mu demé sa papa sama tonton la wax ma mbokk gi côté papam côté yaay wax ma mbokk gi wallahi Sarr xam nga suñu kër mengen ñom seen kër mo nekk tey bu pas fen mom ñoy dëkk fi dëkk la 2011 la ñëwaat ñuy élection présidentielle 2012 mhm. mom mu dem 2011 nous la ñëwaat mom mhm. en 2011 ñu ko defoon secret. kër Medoune Ndoye kër ñoom Béti Ndoye kër Yambas foofu lañ ko defee waaw croisement croisement ñun dañ bëri mën nañ plus 33 personnes 34 mu seet sañu ànd ak ñoom Mbaye Ñàng mi mhm. Koppa ñoo la àndal bu ñëwee jour man maa wax Samba ak Mansour Ndiir mi mhm. man ñoo wax mu ñëw seet sañu waxtaan ak ñun ci li mu bëgg muy ànd ak président Macky Sall liggéey it en 2014 bëgg jël yoof am ay perspective waxtaan ak ñun. dëgg la bi mu waxtaan ak ñun. boobu élection locale yi mi ngi ñëw bu 2014. waaw mais boobu ñu ngi waajal 2012. d'accord bi mu waxtaan ak ñun ci loo xamante ne nii neex naa dégg franchement ñu gis ne kii ndaw la boo xamante ne il est ambitieux te ñun lii lañ bëgg ñu aussi ñu tontu ko. ñun ñuy wax ñëpp ñu jël engagement ci moom. comme quoi que nañ la accompagner dinañ ànd ak yow gunge la liggéey ak yow. Mm-hmm. noonu bi Macky Sall di def son congrès jàmmalaay fële. dëgg la boobu la ñëw ñu toog waxtaan jël ay jël sama sono tek ci ben camion ñu wër yoof man Assane Samba ay foge yi di wax. ñu bari suba bi ñu Père Moussa Sall ndeysaan bu ñu gisee ñu ne ci ko auto bi naan Abdoulaye Diouf Sarr nii dane du dëgg ay dóorkat la ñuy dafa ñu dafa ñu mi quoi ay dóorkat lañ nangam nangam. mu nag lañ tambalé en 2011 franchement engagé wu ci mom di liggéey ak mom di liggéey ak mom ba 2014 ñëw euh, et puis nag jour bi mu ñëwee andax ñom Mbaye Niang man loolu mo dama gëna marqué dafa ñëw. bi ma jëlee kàddu ma ne ko yow ma gis nga àndal nii yëpp Kopa laa si xam c'est mon ami ak grand bëri boobu may ñaa nga mi sax mhm. mais may ñaa nga dañ doon ay tour affaire waaw da koy ma ne ko grand bëri laa xàmmee parce que dama nga xàmmee ci af sud mhm. moom moom xam xam naa ko quoi mhm. kon ak si ne te yow li ñu wax doy nañu mën nañu engagé wu ci yow engagement boobu nag man moom laa am bi may wu si moom mais politiciens yëpp ñu ngi fi mais du lu ñaaw ñëpp ñu ngi fi. Mhm. mais ma engagement boobu joxe naa sama kàddu dem nañ ba ci biir ba liggéey bi avancé ba ñu bëri ñu si nekkoon dem nañ am na ñu si nekk ba tey mais man doon naa nit boo xamante ne maanaam su ma ne la yow la tant que wanoo ma safaan. Mhm. wala defoo ma lu ko jar yow lay doon. Mhm. loolu nag moo ma boolee moom yàlla di dogal ñuy dem di dem di dem ba 2012 Macky Sall jël réew mi jox ko kudd yoof gépp di xëy kudd man mësuma xëy kudd su boobu maa ngi RFM. man mosuma liggéey kut mosuma liggéey ENEA yi sama gars yi doon liggéey tout boobu maa ngi RFM ba mu jógee fa ba yàlla dogal liggéey bi continue en 2014 nag mu ñëw soxla maire yoof ñu toogaat waxtaanaat ñu accompagner waat ko ba yàlla dogalaat ñu jël maire bi ba tey jii ñu continuer ànd di liggéey ak moom. di liggéey waaw comme ni ñu ko gisee rek yaakaar naa ne déggandoo nañ ko mais Didier comme li nga wax na noonu wax ne carrément mu leer na yow yaa ngi ànd ak ko wax parce que na am na fuñ la féetale xëy na tam explication bi dina am lu mu changé dëggantaan franchement c'est pas facile. parce que nit ñi amuñu compréhension. franchement man je sais Ablaye Diouf Sarr en personne Tay bu taaloon c'est seetaan Yoff TV gis ma ci événement bu benen politicien ne may taxaw di présenter du coup. amu si ben problème xam na ma. c'est que ne fait son boulot. Mm. day liggéey mais franchement parler li nga wax c'est vrai du yomb. Ce nit ni boba dinañ ko diaboliser. jëlee ko ñoo xamante ne ni warul parce que dafa am lu ma lay nettali genre benn anecdote parce que am na benn politicien boo xam ne dañ ko dañ demoon doon couvrir événement am hmm. bi ñu demee ñoom ñu manqué ku leen présenté ñu ne ma ñëwal ma ne leen déedéet du ma fi du ma ñëw parce que yow xam nga ne mbooloo mi taxaw man may wax loolu dafay doy waar léegi mm, ma ne leen woo leen dijee mais ndeysaan fi ñu toog ñoom dinañ ñu ngi waxtaan seen biir deux heures de temps ndax dañuy woo di jéem déet ndeysaan kenn moo jóge leen ko woo parce que boo ko woowee du ñëw

dimanche defe naa dimanche. Mm. moo nekkoon finalu Rafi. effectivement. El Hadj Birame Gningue moo fa nekkoon. Mm-hmm. y avait délégation bu Abdoulaye Diouf Sarr Babacar Mbaye Niang moo fa nekkoon. Mm-hmm. Birame Gningue moo nekkoon parrain wu champion bi. Mm. Birame Abdoulaye Diouf Sarr moo nekkoon parrain wu final bu mag bi. Mm. mais Birame moo fa teew. Mm-hmm. maa doon présenté. mais bu mu ñëwee dama def sama liggéey normal. kese présenté El Hadj Birame présenté délégation bi mu àndal def sama liggéey comme il faut. Babacar mu ngi toog Babacar moo njëkkee ñëw bi mu dama ko présenté comme représentant du maire.

comme ni ñuy wax mënul ñàkk ñu dugg ci actualité parce que loolu moo fi nekk du ñàkk itam des fois ñu sànni ko ay xeer parce que si la bokk mooy cooli cooli cooli mën a mën a wax dëgg yàlla itam euh, tungu ne du teew ñu koy nataal ñu dégg fi coow li nga xamante ne moom moo fi nekkoon di jee dañ ko dàq mu ñëwaat sa diggante ak Abdoulaye Diouf Sarr coow ni nga xam ne amoon na fi ani lan la nekk <laughs> waaw ba maa ngi sant yàlla bu baax euh, Abdoulaye Diouf Sarr maax moom gaw më ne si xanañ dàqante wala bàyyante balaa ma si dugg damay sant di gërëma ah. sama pap mhm. mooy sama kilifa. mooy sama kilifa d'abord. Mhm. di sant di gërëm tonton Pape Sylla mhm. mooy ndijaayu Ablaye Diouf Sarr Pape Pédar Pape Ngala Mbeng ñooñu ñëpp bëri nañ neneen Abdou Naar Babacar damay sant di leen gërëm parce que mbir dafa am gis nga bëñ ak làmmeñ ñëw dëkk des fois bëñ laal làmmeñ ba doo comprendre da nga fi lañ xamee ay nit yu dëggu wala ay nit yu mën a ànd ak ñu mënul ànd nit bo nekkee ci mbir gis lo xamantene ne amna nu la def nga bëgg wax waxal mais wax bi na am yar na am teggin na am respect maam Laajou Sarr Laajou vous avez nit ko xamantene ne dama koy dépasser wa nit ko ne dama koy wax du n'importe quoi sar sama la. yàlla vous ñu ñu and fu ne Sénégal y a quatorze régions and nañ région bu ne fanaan nañ fi fu mu dem yobuna ma fa mhm. ma taxaw yëfu micro di wax def sensibilisation wala may liggéey ak sur les quatre régions Sénégal bitim réew la ñu àndagul te incha allah nañ fa ànd bu soobee yàlla. donc mbir am ñi mu métti bëri ku ne di wax man ma ne am am fu ma ne wax sama xalaat wax sama xalaat bi ma waxee sama xalaat nit ñi mooy te mooy wax nit ñi dafa am ñoo xamante ne dañu xaw a doy waar. dëgg am ñoo xamante ne yow da ngay nekkaa nit sax fonk ko bëgg ko. Mm. fekk moom mu ngi am beneen xalaat ci yow. xëy na am na ay nit ñu dem ci moom yóbbul ko lu amul. wala yóbbu ko dul deug wax ko lo xamantene ni taxawul ba tax am reaction bu am mais bi lol amé bañ togat waxtan avant ñu toga waxtan sax man bi bi ciol amé ñu nan Laye Sarr dafa dakh di jelay di jelay dafa kas li dafa am lu mu wax neexu ko mu dakh ak naa nga seexuñu daaxante. dëgg la mais est-ce que wax nga fa nga wara waxé ah bien sûr su wara waxé moy moy suñu bir ñun. wala man duma ma ci si di wax. deug la waye comme lolou da fay ñëwaat rek ci DJ. Ah, ci neutre bi ñuy wax comme li ñuy wax dëgg la xëy na est-ce que bu ñëpp di kaas war na nekk di jelaay ak statut bi nga xamante ne moom moom nga yore moo tax ma ne la est-ce que wax nga fi nga a waxee moo tax ma ne la fi war a waxee mooy suñu biir d'accord maanaam xam nga bu ñu wax neutre maanaam suñu suñu déggee tam ci waxin bi ça veut dire que da ngeen waxtaan seen biir mu am ku trahir loolu merci beaucoup d'accord loolu day am cest à mbooloo moo gis am na ñoo xamante ne nii des fois li ñu fa nekkee doo comprendre mm-hmm. mbooloo moo mënti gis nag dañuy yàq voilà te yoof la ñu ne wax naa ak sànq dafa xaw a doy waar suñu dëkk la hmm. moom rek la ñu am fu ñu mën dem dañuy ñëw yoof hmm. mais boo fi dund dafa am noo fiy dundee comprendre nga dañu nekk suñu biir wax naa léegi laajal man ñi ma gën a proche laajal mbay nanga laajal biraan gars yi ma nekk Assane Samb man du ma wax ci biti hmm. te du ma wax si ginnaaw nit man lu ma war a wax dama koy wax fi ma ko war a waxee te fi ma war a waxee laa waxee peut-être am na ñeneen ñu dem jéem a interpréter lay wax la neen mais lu dul dëgg du yàgg dëgg la mais bi cool yi nit kese nga wax dëgg yàlla nga yor fi kilifa goo papa joo xamante ne kilifa gu rëy la hmm. mais tamit ah, bi wax ji amee cool yi am ba mu éclaté noonu ani lan nga yëg keroog bon plan su ma nee méttiwu ma damay fen te bëgguma fen métti na ma parce que li tax mu métti ma mooy Diouf Sarr maa moom waruñu am ay coow sax ba muy jëm kaw te am na jaar am lu ma defal am lu ma ko defal Diouf Sarr nee naa sama kilifa la maa moom c'est-à-dire Diouf dañuy waxtaan. dañuy toog di waxtaan ñu ñaar kese fu kenn nekkul dama dem këram ñu toog di waxtaan ma am naa si Diouf Sarr loo xamante ne billaahi wallaahi taalaahi jeune bëri amuñu ko. te loolu moom moom ma ko may. la moom moom ma ko may. Mm. te dafa yàgg donc am na loo xamante ne bu amee. dina ma métti. ah moo yey kat parce que yow tam da nga fi bàyyi ñëpp ne moom la de moom moo yey tamit de. c'est ça non c'est-à-dire. <laughs> moo yey de. d'accord ah. parce moom la peut-être moo ma ko wan. wala moo ko liggéey. moom moo jógoon sol dàllam ñëw ci ñun am lu mu ñu wan ba tey ñun ñu engagé wu dem ci moom. bi affaire yi amee coole am premier événement bi stop mais événement bi amoon Océan. Mhm. man maa ko présenté. Mhm. nan laa ko présenté sama néeg laa tëdd tonton Pape Sylla woo ma di jaay Diouf Sarr la mhm. wax ak man xamal ma ne ma yow yaa Diouf Sarr du du amul bàyyinte yéen ña seen kilifa wax ma lim ma wax billaay walaay taalaay ma ma ko kubbee Abdou Naar woo ma ne ma Dj man sa lan laa ma ne sama grand sama kilifa nga mu am lu mu wax moom it am na yoo xam ne bëgguma si jaar maa ngi sama nee tëdd de wala barki Seydina sama papa yi amee da nga toog jàpp sa jàmbur parce que dégg ñu ne sa benn réseaux sociaux defandoo sax da nga gis ñooñu continuer gedd mais yow da nga jàpp sa tranquille am na loo xamante ne wax du ko faj d'accord te bu amee mu wóor la la yow man man dafa am mu wóor ma ne man lii jarul wax mhm. du luy jëm kaw. Mm. parce xam naa ni mu demee. te xam naa ki ma ko seexal aussi. xam naa loolu lii nii du luy wéy. Mm. yàlla moo tax may wax barki Seydina Limamou. dafa fekk rek mu amuñu beneen DJ laay bu ñu amoon beneen DJ laay ñoom la gis. non non Baye Ousseynou <laughs> mm. man na ma seede c'est mon frère. max moom la woon c'est mon frère. bi ñu jógee ministère di ñibbi yow ñoo bokk taxi ay kala laa ko wax. dama ne ko mu ne waaw ma ne bul wax. mu ne waaw ma ne bul la kenn dégg. loolu laa ko wax yem parce que xam naa li tax ma wax ko loolu. xam naa li war affaire bi xam naa c'est-à-dire y a des gens yoo xam ne des fois tu les déranges même sax da leen déranger te doo ko xam mais ki nga séqal xam ko mu xam la rek. mais loolu mooy l'essentiel. bi affaire amee ma toog sama kër waxuma si kenn dégguma si WhatsApp kenn gisuma si Facebook ñu ba def leen jaaxal. dama déglu ci ay groupe ñuy wax mais moom kenn déggu ko nangam nangam si yoof la ñu ne. am na yoo xam ne lu ñu bëgg nga wax bañ tas ko. ñii nga wax bañ yóbbu ko. man kenn du ma wax loolu te bëgguma wax. kenn du ma loolu lu ma war wax. te dama am kilifa. àdduna dafa lu am solo mooy am kilifa. Mm-hmm. man sama baaba bu ne ma woon bàyyil Mariama dama lay bàyyi. dëgg la barki Seydina Limaamu. Mm-hmm. bàyyil Mariama Thiaw doot dootuma dajeeg yow. Mm-hmm. loolu laa gëm. dëgg la. attends ma toog sama néeg paa bi woo ma DJ ma ñëw mu ne ma demoo Océan ma ne ko mu ne ma soo say daal nga dem nga def liggéey ba nga daan def barki Rola Issa. maa ngi ko non papa instant bi dama mu ne ma oh laajuma la sama papa dama yee. day def noonu solo say daal la nga dem nga liggéey la nga daan liggéey ma fontoo nan laay def après. doo dem. non laaj nan laay def dama am kilifa sama papa sama kilifa la. Pape Sylla kilifa la. Ngalla Mbengue sama kilifa la. te ndox xool ñu ma lay wax ay pédar ay kilifa yu mel noonu di ma oo di si wax. ma solo samay daal la dem Océan. lu ma ñëw Océan ba jël

rafet na dëgg la te ñu si bari tam ci investiture bi lañ la njëkk gis ñu bari tamit yaakaar ne investiture bi motax ñom ñoom jëli waat la comme ni wala parce que amuñu élément bu melni DJ. xam nga xam nga <laughs> investiture dama ñëw ma ngi lu wéx ñu may toñ ñu ne maanaam tey jàmm nga woote quoi woote ak <laughs> ambiance parce que ma ngi ñu fofu <laughs> mais tamit loolu lan nga ci jàng parce que da ngay tollu moment yo xamantene wax dëgg yalla dina metti lool da ngay gis ñi la bëgg. di nga gis ñi la bañ di nga gis ñi nga xam tamit dañuy masla ak yow lo ci jàng. effectivement amna solo très bonne question mooy wane ne àdduna féppos rek lépp lu ñëw rek da lay jàngal mm. et puis dafa lay permettre nga gën a xam fi ngay teg sa tànk mm. dafa lay permettre nga gën a xam ni ngay doxalee ak ko war a waxal ak ko a waxal nga dëkk bi nekk nii yow amal jàmm ak ñëpp rek bul xebaatee bul bañ bul ŋaañ mais mi xoolal sa taxawaay bu baax parce ni nga yaakaar ne dañ la bëgg yëpp ñëpp bëgguñu la damay déglu fan yi euh, imaam oustaz Modou Fall gars yi dañ koy tooñ naan good buzz mais dëgg la wax mu ne nit a ngi xëy di ànd ak yow di la siiñ di lekkandook yow di naandoog yow te sa defet rek la bëgg. billaahi dëgg dëgg la te dama si te dama ko découvrir dama ko xam moo tax man nag du ma kenn ne la yow yaa def nii wala yaa def nële su ma du ma nit boobu man bëgguma xiiroo ngaayoo sama métier may ma loolu métier bi may liggéey dafa ànd ak jàmm dafa ànd ak am am am humour di foo di kaf di ree mais daf ma jàngal lu bëri nag affaire bii nii. dëgg la te yéena ma ci àdduna sama parent am na lu ma ci wax te dina gën a tax man ma xam kan laa war a seexal ak ku ma warul seexal. dëgg la te cat mu cat mënul mënul mënul ñàkk mais bi ci am carrément. waaw bon gën a taxaw. d'accord gën a taxaw man sama nee naa sama liggéey laa am. Mhm. gën a taxaw fa ma daan liggéeyee tey dañ ma gën a jox cër. may gën a liggéey fii ci yoof li may gën a taxaw dama koy gën a taxawee. Mhm. gën a gën a def la ma daan def parce que loolu mooy sama cër. man bëgguma nekk ci mbir di si gën a yées mm-hmm. du ma ko def bëgg ma nekk ci mbir di jël ndaare mm-hmm. damay bokk ci ñiy jiitu ci ñi nga xamante ne dañuy am taxawaay bu am solo di si liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. tey dama gën a taxaw dëgg la comme li ñuy wax tamit euh, dégg ngeen li nga xamante ne yaakaar naa ne leer na mais tamit euh, DJ lan mooy def charme DJ Laye parce que Modou Fall ak DJ Laye bokkul nee naa la ba ma njëkkee dégg sa tur damaa tiit mais lan nga yaakaar ne mooy def charme di Laye ñii nee nañ DJ Laye jëlee micro buy dox di ñëw pour présenter tuuti. non DJ DJ ñëw ci <laughs> lan mooy charme DJ Laye. non mais am ku ne ak sa style. Mhm. ku ne ak sa technique. c'est-à-dire Modou Fall c'est-à-dire Mamadou Samb wala Mamadou Laye Samb. ak DJ Laye bokkul. dëgg la man ñu wéy su ma toogee ñoom di wax ak ñoom nii danaa mais yow. ni ngay waxee boo yore ak boo ni ngay waxee nii mais bokkul ko dëgg la dafa wuute waaw mhm. man soo ndi sama ko may dafa ma yeb quoi nee na dañuy toog kambis ma dama mën a weerante. dañu toog campus ni may werantee di yuuxu néna mu romb ma ba yàlla may présenter concert di wax mu taxaw di ma déglu mu né ki billaay ki mo doy waar <laughs> ki dégg ni muy waxee ni mu neex ni té bu ne si campus bi di werante di yuuxu mais bokul dëgg la liggéey bu ne am na ko wara défé defee effectivement te ñun li ñuy liggéey nii nga wax yombul mm-hmm. pour ñu dégg la c'est-à-dire il faut nga xol intonation bi ngay waxé articulation bi ni nga wara waxé ba technique bi ba mu génné carrément mm-hmm. mais loolu lépp tamit

nit ñi buñ lay dégg di content ci yow wala nga wax ñu content ci yow fan yi damay dox ci tali marché bi ni quoi man duma star. Mhm. ah man star. mais amna ci ñoo xam parce que aduna ko gis amna na ku la bëgg. bien sûr amon nga nek star tam ci ñen ñi lolu moom. xalé bu ndaw damay dox may ànd ak koppa ak tamsir tammi mu won mhm. xawma ak kan ñu ngi dox ci tali marché bi ni timis ben xalé bu jigen daw ba dam xawmako musuma ko gis. téye sama loxo ne ma DJ sama ma ne ma yow ni nga may waxee ni ma neex. rek Kopa ne laay laay yoo ko noonu. <laughs> ñeneen mais day am. maa day am dangay taxaw di wax xam nga ku ñi lay dégg wax dafa garaaw. Mm. koo xam mu ngi lay dégg koo xam mu lay dégg. mu daal ma ne li ngay waxee dama ne ma ne ko merci beaucoup affaire yooyu noonu mais ça me touche. parce que donte li ngay wax dafa neex benn nit. dafa neex benn nit. man am naa satisfaction. parce que nit ak ni ko yàlla mooñee defar ko bind la yow ngay def kooku di kontaan xolam di féex loolu jar na sant yàlla. dëgg la mais tey jii boo doon boo ñu doon defal par exemple tey ji jàngat ci bi nga commencé wax dëgg yàlla sa carrière animation ba fi nga toll nii ci rek lan am naa satisfaction bien vrai que am na lu ma sama benn di wax daf may wax ne ma yow heure bi waroon nga fii dëgg la man animateur yu bëri dama dem benn dama dem benn. ben ben ben casting euh, DSTV bi dañu fa ay animateur ñuy waxtaan ñu ngi ñu ngi tok ak Sala Sala Ndiaye moy Sala moy doomu Elage Ndiaye bi mané man koy nuyu man DSTV bi lay liggéey ak père jeen euh Papa Ali Ali di dëkk na ngaañ ñu bolé ma ci ma dem fa ñu ñu kii dañu animateur ñuy tok di waxtaan ku ne di wax yow kenen commencé animer ñu naan man 2011 ñi di wax ay 2008 ñi di wax ay 2014 Ilaah yi may leen 2000. dañ bokk seen 3000. mais foo nekkoon ba heure bi affaire yooyu noonu. ay voix bi nga am ni mel non noonu jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. kese yàlla mooy dogal. bien vrai que bon yoof moy li ma son di do yoof ñun on a pas tendance yoof xale nga am talent gëm sa bopp jóg demal sa bopp. dedet dem wutu ji. exemple man li ma def ak Boubacar Diallo ken présenté wuma ken kenn man kenn mosuma présenté nit muy Boubacar muy Michael Souma ku si ne. maa jógal sama bopp. dem ba si yow xamoo ma mosoo maa gis. ma présenté wu fexe boo xamante yow ba am li may am ci yow. kese yoo amuñu habitude boobu. amuñu culture boobu. lébu voilà mm. man nag boo bëggee dara dangay def dara. mais bien vrai que heure bi c'est gëm naa loolu nangu naa ko. Mm-hmm. peut être moo nga nekk feneen. mais aussi yoonu ndaw du gaaw te yoonu ndaw du jeex da ngay gën a ndànk rek incha allah gën a liggéey. Mm-hmm. bu soob yàlla lépp dafay ñëw. yan moment lan moo la gën a marqué ci li nga li bon bi ma commencé bi may commencé carrément nag euh, contrat yi di bëri may may commencé ñu lay ñu lay jël ba ngay bàyyi ay contrat maanaam waaw nu mu demee nii. comprendre nga da nga doon toog des fois tool foo xamante ne nii doo gis ku ne la kaay animé ma te pourtant yaa ngi animé ñeneen ñooy am contrat ngay dem di animé wala di animé si ay matériel jàmbur mais ma demee ba moment bi nga xamante ne nii euh, kii da lay woo fii ñu ne la kaay animé nga pare ñu juboo nga toog keneen oo soxla la. affaire bi di di xat loolu moom daf ma daf ma toucher quoi dama ne ni nu mu demee nii ba instant bi ni nga am problème sax war a bégal kii war a bégal war a bégal kii. dëgg bëgg satisfaire ñëpp. wa instant affaire bi c'est-à-dire da nga dem ba bon yàlla na yokku de ma dama. amiin amiin je touche du bois. amiin man tollu ma fenn wax dëgg yalla defuma dara eh, mais lolou ça me touche. Mhm. ba demee ba nit ñi di la sentir di wax ne non ñun yow lañ bëgg yow yow nga ñëw géral suñu yëf ba boo ñëwulee ñu lay mere. Mhm. barki Seydina Limaamu ay nit da ngay damay daje ñoom ci dëkk bi duñ ma nuyu ndax dañ soxla woon dara nga pour nga ñëw defal leen manul ne ñu méré la. billahi wallahi taala dëgg la dëgg la mais bon il faut ñu lay comprendre parce que amna lo xamanteni ni mm. man la dafa dafa luma bañ dafa ne bëgguma ko bëgguma waxa Mariama bañ jubbo ma war la animel du ma ñëw. dëgg la lool la gëna bañ. dëgg la parce que akhla pour man. cadeau la dama joxe sama cadeau mm-hmm. waxtaan ak yow nga jox ma avance sama boy ñew nañ branché après doo ma gis pour ma axal ah, bëgg ma lool loolu laa gën ragal dëgg la lan yan moment yi nga si dund yo xamantene mo gëna difficile ci sa carrière waaw te metti na la da do ko faté ah waaw bon moy moment yi ma lay wax ni euh que amna ben moment loolu ma ngi nek ak messa ñu don tollu fo xamantene ni da doon metti torop torop torop torop ñu don fanal ñu don defandoo lépp pour nga animer mu yegg sax day metti billahi wallahi taala pour nga animer benen fa mu yegg parce que gaay yi dañuy ñew yak sa matériel dagg saa yi baaxul da ngay jékki-jékki affaire yi te da ngay jël contrat jàmbur di animé ba si digg bi ñu yàqal la mënatoo continuer da ngay toog mu lay metti complètement bilaay walaay taalaay affaire yi bon mais sant yàlla rek quoi affaire yi fayit la parce que ku bëgg dara foog nga def dara te balaa ngay atteindre benn niveau bi il faut nga jaar ci mettit mais jamono boobu moom da doon metti complètement da nga doon ragal sa après jël engagé yëfu jàmbur wala nga dem di animé waaw non parce que da doon metti da nga doon xeex man président ñaatoon laa fa xeex xeex da ngay andi taxaw andi ba si nit nit doy nangam tamen taman so ma saagee damay damay xex billahi wallahi taala donc dafa dama bo metti woon na mais gëm sa bop moo ci ciy xam li nga bëgg xam ne li ni du dara hmm. day metti après dang ci ciy génn loolu ci la mais aduna lepp lo gis tam dina am yu neex am yu naxari hmm. mais ani lan mo la ci gëna neex ba nga xamantene fim nek ni sa boko xalaté tam da ngay contane bokul ak ba légui lu la gëna marqué a neex ci loo dund ci ci bi. ma demee bay toog ay ministre toog à part ça à part sama yaay bi mu demee ba nangul ma si li may liggéey di ma ñaanal. ndeysaan exemple may toog nii may su may génn ma ñëw mu ñaanal ma moom taalib seen alimaamu la quoi mm-hmm. bu ñaanee ba def ñetti ñetti seen alimaamu yi. moom loolu la bu ne kaay ma defal la ñetti ñetti seen alimaamu yi. ba ñaanal satisfaction mais ma demee ba DJ l'ai depuis fi da ngay exemple ministre toog ministre nangam ministre nangam toog ministre nangam toog ministre nga toog seen kanam di présenter wax ni mu ni mu ay autorité nga a wax war ko ci après gis franchement kon am avancement bu am. effectivement ma taxawee euh, mais attends y avait Abdoulaye Diouf Sarr y avait Amadou Ba y avait Seydou Gueye 19 communes les maires tout le monde Alioune Ndoye ministre c'est-à-dire ñëpp toog ngay jàkkaarloo ñoom public bi di wax yow rek ñu lay xool di la déglu mais attends loolu il faut nga am fit il faut nga gëm sa bopp il faut nga mën li ngay def loolu moom franchement lu ma neex la lu ma jàngale ça montre que ne tey di jëlaay mu ngi màgg quoi quand même. dëgg la yaakaar naa ne loolu leer na waaye tamit bitiku mbagg boo gis cantine moo nekk ci bopp bi ani lan mooy projet yi di franchement parler Berina. Berina. bëri na bëgg a euh, base moi fi commencé duñ mais franchement parler je évoluer je li nga télé je man bu télé rek a tax may wax Je nit ma ah, bon am na télé je lim mm-hmm. wallahi azim je suis ma am am émission mais je télé télé télé télé du tax nga dem télé bo xamante ni aussi di nga dem après tu perds ton temps do am visibilité bi nga bëgg wala du genre mais tamit do ñëw rek ne man damay dem ci télé bu rëy nangam nangam lepp lo gis ndànk-ndànk la am nañ ay ay ay ay ay projet bu dul dara ñu ngi wax suñu sono di liggéey fi am na yo xamante dafa manké yof mhm. moy suñu relation high qualité am ce strat high qualité et lumière et tout ça loolu war nañ ko mëna am ba yoof doo suñu am dootuñu am problème yooyu war nañ mën a dem incha allah di liggéey ak ñi nga xamante ne balaa balaa ñuy tëj est-ce que dina am ay xale yoo xamante ne dañuy ñëw ci yow ah, di demander pour billaahi wallaahi taala yoof gi am na ay booy dëkk tongoor am na si koo xamante ne benn rakku big la maa koy nuyu mhm. daf may woo téléphone d'accord dijee dama bëgg nga defal ma formation mhm. dama bëgg ñëw si yow ñu ànd di liggéey Moussa Ndiaye dëkk sama kër mu ngi nekk si beneen télé local bi yoof bi exemple dafa ma ko dijee affaire dama defal formation dama jangal dama defal nangam bari na ñu bari dañ ma koy wax mm. DJ dama bëgg ñëw ci yow ñu and di liggéey ma gën a xam affaire bi tout ça mais loolu lépp mën na nekk mën na nekk man yor ma école mm-hmm. man ba tey damay jàng si projet yi incha allah voilà projet yi noonu la demee ah incha allah bëgg nañ daal def fi yoof loo xamante ne nii kenn mosu ko fi def am fi aussi loo xamante ne kenn mosu ko fi am

est nekkoon réussite total total total basket bi surtout. lamb football bi. nit voilà soirée de gala bi. Mhm. donc da fay ñëw bëgg na am yeneen yo xamantene aussi euh, am nañ ay projet pour liggéey ak ay artistes. lu si melni dem ci ay grand théâtre pourquoi pas. Mhm. xool benn artiste renommé liguer ak mom am ak mom benn coproduction liggéey ak moom. Mhm. pour le grand théâtre nga dem faneen ak faneen faneen projet yi bari na. mais man mom particulièrement personnellement euh, ma ngi ci ay mbir c'est-à-dire man dama ragal yoof da nga ragal yoof waaye mënul ñàkk tam ñu ñambaas ko si ah, parce que ñambaas yàqul sër euh, récemment ñu ngi ko gis ci série valeur <laughs> waaw waaw waaw DJ Laye gis nañ la valeur huissier monsieur l'huissier moo <laughs> <laughs> gisee statut yi li ci naa huissier dama ree ba sonn ndeysaan waaw bon loolu la ma sama gaa yi tooñee dëgg yàlla ñu kontaan nga nekk benn fierté moom xam nga nit moom nit waroo am frontière waroo am fooy yem ne man li rek laay def fii rek laay yem déedéet man dama ambitieux lu ma gis loo xamante ne nii Euh, sama diine bañu ko. Mhm. te lu baax la war naa ci mën a dugg liggéey ci dama koy def. Mhm. moo tax madame mooy li ma la léegi man nit mësuma téye yóbbu ma ne ma kaay ma présenté la kii. Mhm. valeur ni ma ko intégré dama toog gis benn ma nekk si benn groupe WhatsApp ñu dugal fa seen seen seen kii benn affiche que quoi dañuy def casting et tout ça. ma toog benn journée rek. ñu ne nañ envoyé photo yi quoi. envoyé ñaari photo envoyé photo seen semaine bi soo rek ñu woo ma téléphone. ne ma ñuy place temps et dañ gis ay photo animateur nga mané waw ñu mo ok d'accord kon yow di nga mëna wara mëna wax ay tout ça yow ñëwul ma dem fi ci VDN bi ni dem def casting bi bima defé casting bi ok c'est bon ñu na ma demal ma ñëw tok ben ñu woma jëkkoon nañ ma woo am benen rôle moo doon joué boobu antewul tay ñu owat ma né ma da ngay ñëw commencer mais rôle huissier la ma ne bon amu problème c'est une première njëkk naa def ay casting ak Evan Prod hmm.

activité yi lek oh la, non non attends il y a même événement <laughs> publiquement nit ni ñëw taxaw fess ma jël micro jox la ngay bañ di daw. bañ ma bañ daw dëgg la yow dal tok caméra bi tim la nga tok di wax. <laughs> loolu mun nañ ko artiste amul amul limite dafa am loo wax légui yof lañu nekk. waaw c'est ça te yàlla baax na man dama yalla moo tax wax. dëgg la c'est-à-dire sama kilifa dafa ma koy wax te man dama ragal di wax lu ñëwagul. Mm. moo tax su ma ci mbir bo xam te ne ngi ci sax te si wut dama koy neub mais man dama ragal di wax lu ñëwagul franchement parler. dëgg la ani lan ngay tàggatoo parce que waxtaan bi neex na lool wax dëgg yàlla. gis nañ ah, waxtaan bi. mu ne xanaa xalaat yi ci mujjee xanaa di bëgg. franchement parler di kontaan trop trop trop trop ci yow da nga ma yàgg topp di ma wax ne ma yow il faut ñu toog. billaay yow il faut ñu toog il faut ñu toog xam nga yow moom sama féete nga. yow budul waaw moom seede na ko yow mbokk gi. Uh-huh. ñu mbokk maam mais sama féete nga. loolu am na moom wax dëgg yàlla lu yendu si man fanaan ci yow. lu fanaan dañuy waxtaan ci liggéey bi. Uh-huh. nga may dolli ma lay dolli. ay ay waaw maa yow benn lañ quoi. franchement donc tey boo ma invité ma war a ñëw jàkkaarloog waa Yoff si télévision wu bu mag bi mbégte rek laa ci mën a am. contentement rek laa ci mën a am. Mm-hmm. et di remercier aussi euh, di ñaanal sama papa ak sama yaay. Mm-hmm. franchement ñoom dañ may ñaanal ci li may nekk nii à chaque fois. mën naa ne man ñoom ñooy sama gàllaaj man bëriwul sax lu may dem ci ay sëriñ sama gars yi dañ ma koy da ngay caaxaan. teel sangu teel takk et tout ba daw ma ko bañu ma ko. la mais billaahi man sama ñaanu wéjur laa gën a soxla d' abord. Mhm. te ñu ma koy defal. dama leen ñaanal rek ñoom yàlla nañ fekkee lépp incha allah. lépp yàlla nañ ko fekkee. di remercier population bu Yoff parce que tey mënoon naa fi nekk nekk animateur duñ ma jox bopp wala duñ la oo seen événement da sonn rek mais man siwuma du star mhm. mais tey booy dem di persévérer ba àgg fi nga àgg nii waa Yoff ñoo tax.

def ko ni ma ko war a defee. Mm-hmm. sama pap baytiir. Mm-hmm. baytiir laay seen di sax ma xarit pap mu ngi toog sama sëriñ Ibba Faye. maam mm-hmm. bay laay Issa Diop ñoom ñu ngi toog. mais bayti après pap bayti daf ma woo téléphone. ne mais fils man xaw ma woon ne yow man nga lii. ndeysaan ñun lii soxlaatuñu ko fen yooyu noonu yëpp mbégte lay doon satisfaction lay doon. di ñaan rek si suñu sëriñ yooyu yàlla na ñu ñu ñu dolli ñu ñaan. yàlla defal ñu cat xam nga làmmiñ yeeg bët yi ñu taxaw di wax yàlla nañu ci yàlla musal. te defal ñu jàmm. waaye nag di remercier sama kilifa. muy Abdoulaye Diouf Sarr encore une fois man doomu Yoff la nga yeneen opposants yi nekk ci Yoff yeneen politiciens yëpp ku ma si dajal da nga yaakaar ne ñoom laa àndal. la ñoom ñëpp jàmm laa seexee ñoom foo kafre Seydi. Mhm. bu ñu dajee sang bi laa koy wax dañuy taxaw waxtaan. tooñante ana paa bi nangam nangam naa que jàmm rek moo fi xaj. Mhm. muy keneen ak keneen mais Diouf Sarr yàlla moo ñu boole. yàlla moo dogal loolu. yàlla def ñu mën a ànd man a liggéey mu sama kilifa mu defal ma lu ne man dama ko defal lu ko fu ne mais delloo na ma loolu. te liggéey bi yamul fii day continuer. incha donc may woo waa Yoff incha allah day continuer ba ba feneen ak feneen. di woo waa Yoff di leen wax ne incha allah sani euh, sañu ma toog fii ba jóg. te du ma lancer message boobu aussi. que ne waa Diouf Sarr suñu doom la. Mm-hmm. doomu Yoff la. te Yoff je pense que ne amul autorité boppu Diouf Sarr. Mm-hmm. koo tous les mercredis mu dem toog ak son excellence le président Macky Sall Yoff amuñu ko feneen. Mm-hmm. ku mën a dem jëli ji feneen di indi Yoff. yoo amuñu ko feneen booleeg li fi nekk ñu mën liggéey yoof kon nañ ci gën bàyyi xel xam ne Abdoulaye mi suñu doom la te suñu njariñ la tey mu ngi maire yoof di fi liggéey ñëpp gis nañ yoof tey ni mu changé xar kanam loolu moom kenn dootu ko naataable donc bu yàlla dogalee incha mu dem ba jël maire Dakar avantage yu Dakar la mais avantage yoof la encore une fois loolu nañ ci bàyyi xel ñu ànd ak accompagner ko mu mën jot li mu yootu su ko defee yoof gépp Dakar gépp mën ci jariñu ndax Diouf yàlla xam na ne du dara dama koy faral di ko wax nit ku bax la franchement parlé ak lu ma neexee nit ku bax la. nit ku oyof la yaruna amna am na yar am na tey. ñu muy àndal di liggéey ay nit ñu bax lañ. waaye aussi ma ngi remercier sama grand Abdou nar Mbengue mom sama grand la yalla def ñu fété dañuy nek chaque jour dañuy amna dañuy añandoo. dañuy reerandoo di weerante waaw franchement sama sama sama sama grand la. Ah. sama kilifa la dañuy jabaram aji Farimata Ndoye. waaw sa fété la moom. lu ne la koy def. lu ne lu ne la koy wax. donc ñooñu ay nit lañ ñoo xamante ne nii dañu bokk si ñun. Babacar. sama grand la waaw Birane Samb sama copain yi ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp franchement parler te moom dama kontaan quoi abalibaas ñëpp ñoom fële ñoom Assane Samb Sow Ceek ñoom a Ndir sam c'est-à-dire yoof ñoom Zak man yoof nit laa c'est-à-dire dafa mel ne bu ma metti Mariama su ma sañoon yoof man liggéey bi may liggéey nii di si persévérer dama am sama benn xarit kooku duma ko mës a si àdduna tey lii la fekk ko fi muy Baye Mbodj dama doon wax ya dama doon ñaan yàlla quoi di wax naan man bu su ma amee soxna su ma amee doom yàlla na ma yàlla mooy doom bu ma tuddee ko Baye yàlla dogal na ko tey Zak sama beneen copain moo bu góor sa cousin tuddee ko Baye Mbodj jigéen la ma yàlla may ma tuddee ko sama rakk bu mais wallaay Azim sama téléphone. moom moo ci nekk. moom bi mu gaañoo ba léegi cest à bés bés jot man dama nekk yeewu ba tëddaat te sama xel du dem ci Baye Mbodj te nit la boo xam ne on était tout le temps ensemble. di def loolu ne di waxal ne yàlla jëlee ko fi loolu a na ci li ma gën a métti ci àdduna man loolu noonu bokk na ci li ma gën a métti ci àdduna mais yàlla mooy buur moom mooy dogal te bu soxlaa ñëppay ñàkk mais tey li ma ñaan yàlla rek mooy ay wajuram ñu ngi fi waa këram ñu ngi fi yàlla nañu yàlla kàntanal dooleel ñu ba lépp luñ lu naroon ci moom ñu def ko si ñi fi nekk. loolu moom c'est un message que je tenais wax ko ci kanam waa Yoff yëpp que ñu ku ñuy fàtte ñun. wallahi azim ma marqué tellement barki Thank you. macha allah Fall dinañ xool naka lañ siy def ah, di amaat mbégte ah ak contentement di fi recevoir euh, di jëlaay comme ni ñu koy waxee moom monument la moom suñu fierté la ñun waay Yoff ba tax na à chaque fois bu événement amee boo déggee voix am rek da ngay daal di kontaan wala nga xewle dara da ngay yaakaar ne moom rek moo la ko mën a defal te loolu sant yàlla la ah, comme li ñuy wax. soxlawatuñ ñuy dem fenn dem di dem wuti kenn parce que yàlla mu ñuy suturaal ba yoof fi mu nekk nii mën nañ wax ne am nañ lépp parce que lépp loo xam nañ teneen nii rek ah, nit soxla na ko rek yàlla may nañu ko mu nekk ay juddu yoof donc dañuy kontaan bu waxee ba jooy xamal ne lu nekk ci dëgg lu dëggu ci moom la te ñëpp xamoon nañ digganteem ak Baye Mbotia ah.